jaajëfewaat leen bu baax ah, di am contentement ak mbégte jano ak yéen chaque jour ngeen indi leen li gën a fas si boobu xibaar yi leen nuyu yéen suñuy internet ci aljuma ju ji ci nuyu bi nag dama ciy jiital borom kër gi di Pape Thialis di ko nuyu te di ko ñaanal jàmm ju baree bari di nuyu ñu ma feggool daal di ñëw jukkil leen li gën a fas mbay nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay wante maa ngi nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yépp ñi nga xamante ni bii ñu ngi ñuy topp ci léetoo TV rawatina revue de l'arène ñu ngi leen di wax juma mubarak Assane Waalo Ndeye maa ngi lay fay di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen ñi gën a fës ci yéenekaayu làmb ci vendredi 9 avril 2021 les échos la ñuy njëkkee ci xibaar yi lam xam le nag mooy Balla Gaye numéro 2 Eumeu Sène en station kii di Gaston Mbengue mu ngi ci négociation yi bu sottee rek ut la ko a jàpp mbay Babacar Euh, ba ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Gaston Mbengue di la Don King de l'arène mi ngi préparé beneen acte 3 gannaaw bu mu jógee ci acte 3 mi ngi dëgmal beneen ak acte 3 mu war a dox ci diggante Balla Gaye ak Eumeu seen ku ne xam na ne ñaari ñooñu bëri nañ ñaari yoon Eumeu Sène daan ko ñaari yoon Gaston nag li mu bëggaat mooy tëgg ko ñetteelu yoon bi incha allah loolu bu jàppandee ci mois de août bi la koy taxawal asal dëgg la mbay Babacar journal Les Échos moo xëy wax ñu ko nee ne Balla Gaye Eumeu Sène en gestation pour clôturer la saison nee ne Gaston Mbengue moom mooy nekk di démarché komba boobu te tey sax prévoir na benn réunion entre wala benn rencontre entre staffu Eumeu Sène wala Eumeu Sène ak staffu euh, promoteur bii di Gaston Mbengue nee na tey daal war nañu daje pour négocier xool nan la ñuy doxee ba taxawal combat boobu euh, nee na également combat boobu bu dee taxawal na ko. Euh, combat boobu mi ngi ko prévoir euh, terminer saison bi au mois d'août maanaam mois d'août ma ngi doon nag lu ci kanam rawli gët journal suñu lamb lañ jëm moom xëyee ci xëtam mu njëkk MMA la foudre s'abat sur le Suisse rëg-rëg Mage Patrick Mbaye mi ngi noonu euh, suñu làmb moo bind loolu Ndeye Mbacke nee na euh, dënn bi nga xamante ne bii moo nekk caaro yi ñu koy woowee rëg-rëg gannaaw ba mu amee ndam ci Patrick Smith fi mu toll nii teglante teglante na li nga xamante ne bii moom mooy ñetti victoire assan wante li ci gën a neex suñu làmb da doon wàññiku yi nee na 62 secondes maanaam juróom-benn fukki secondes ak ñaar rëg-rëg dóor na ci euh, ki nga xamante ne bii moom la doon jàmmaar lool juróom-benn fukki coup. ak ñaar fu ne la ko dóor nag dóor na ko ci bopp dóor na ko ci lool dóor na ko ci bakkan dóor na ko ci gémmiñ fu ne daal dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee noonu la MMA la foudre la ko journal suñu làmb waxee nee ne rëg-rëg mii doon jàkkaarloog euh, Patrick Sumit daal daan na ko lekk na ko noonu la ko waxee comme ni nga ko waxee également 62 coups le rëg-rëg dóor adversaire am bi euh, en 62 secondes victoire boobu nag mooy nekk troisième victoire wu rëg-rëg ci gagné na Sofiane Boukissou gagné na Pierre Alain Ngalani kon euh, Patrick euh, Sumit bi moom mooy troisième mu victime mu Reug Reug ci MMA. xam nga sérieux lu xew ah da doon taw. <laughs> non comme mbàccum gerte xam nga mbàccum gerte mbàccum gerte mu ñu ni mba yi gaawe noonu. noonu la kur feññee gaawee. Reug Reug mais di ko ci ñaanal jàmm ju bëree bëri moom Reug Reug ah yàlla ko ndam li jig te ndam ndam ndam topp ci. coalition Ama Baldé. Balla Gaye numéro 2 Sa Thiès Modou Lo contre mu mel ni ñetti ñooñu dañoo booloo rek def seen triple entente nar a jëri couronne bi parcelle yóbbu ko Pikine bay waaw waaw olof Ndiaye def ne mbooloo moom mooy doole ñoom ñett ki nga xamante ne bii moom mooy Balla Gaye Sa Thiès ak Ama Baldé ñoom ñett ñoo def benn bloc di euh, boole seen doole ak seen xel ak seen xalaat ngir incha allah bu am bu Ama Baldé jàkkaarloo ak Modou Lo mën a fuqati couronne bi. ànd ko foofu ci Pikine Assane. dëgg la Mbaye Babacar coalition Ama Balla Gaye 2 et Sa Thiès contre tous noonu la ko journal suñu la am waxee nee ne Ama Balla ak euh, Balla Gaye 2 ak Sa ñoom ñoo nekk seen ruq di entraîner. uniquement pour préparer combat royal bi war a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo combat boobu nag ñu fàttali ne Ama Baldé am na combat bon Balla Gaye 2 am na combat Sa Thiès également am na combat Sa Thiès mi ngi dajeek ak Moussa Ndoye Bombardier moo war a jaflonteeg ak euh, Balla Gaye 2 kon daal ñoom ñett ñi ngi seen rux nekk euh, ab de copains di entraîner bu mu boolee seen doole yaakaar naa seen adversaire yi war nañu am problème le jour di combat. Uh-huh. waaw ah te ku jaaxle ku nekk ci say mbokk nga jëm de. mu ngi noonu nag ci Eumeu Sène lañ jëm borom taay si nga la fu de Pikine lam xam ne ci journal bi rek mooy pare na pour bëri ak ki nga xam te ne mooy Balla Gaye numéro 2 journal bi da nee na Eumeu seen daa def li nga xam te ne mooy wax waxeet Mbaye Babacar. waaw loolu ku nekk tàmm na ko ci mbër mbër moom ay waxam ni ma koy waxee saa su ne ak rëdd ci ndox moo yem lu paase rek bul ko jàpp. mu ngi noonu mbëri yi moom dama yàlla jéggal ci benn côté bëri na ci ñu mel noonu Eumeu Sène ba mu defee wax waxet nag dafa ne woon dootul bëreeti ak Balla Gaye fi mu toll nii mu ngi ci fin de carrière pare na nee na fi mu toll nii ngir jàkkaarloo ak Balla Gaye bii mooy ñetteelu yoon bi incha allah. dëgg la mbay Babacar Eumeu Sène fee di wax waxet noonu la ko journal suñu làmb waxee ndax Eumeu Sène après bi mu daanee euh, combat bi mu jëlee couronne roi euh, des arènes ci Modou Lo daf ne dootul bëri ak euh, Balla Gaye 2 ndax daanee na ko ñaari yoon waaye ginnaaw bi ko Lac de Guiers daanee dernier entretien bi mu def daf ne moom pare na pour jaflante ak Balla Gaye suñ tëggee combat boobu moom pare na nee ndax Balla dafa sonal waa Pikine nee na daane na fa Coly Faye Tyson Bathie Seras Tyson Junior booy Sey ak Samba Laobé nee na ñi ñëpp Balla Gaye daane na leen ca Pikine te moom rek moo nekk mbër moo xam ne nii moo ko fa te loolu bëgg na ko continuer incha allah. wante moom daan na Balla Gaye ñaari yoon. daane na ko ñaari yoon daj daane na ko le 8 février 2009 daane na ko également le 5 avril 2015. ayca. ma ngi doon nag gala à Koutal ce soir Vieux production teg na fa li nga xam te ne mooy mise au 1 million de francs CFA Mbaye Babacar. Koutal la ñu jëm incha allah Vieux production moo fa teg ca taabal ja pour mbër yi jongante ci seen biir loolu lutte traditionnelle lay doon asal. dëgg la Mbaye Babacar gala à Koutal ce soir euh, noonu la ko journal suñu laam waxee nee na tey ci vendredi bi benn gala dina démarrer foofa ca Koutal Koutal nag benn dëkk la bu nekk ci arrondissement wala ci commune Ndiafate Vieux Ndiaye moo fay tëgg benn gala galaa boobu nag un million la fa teg euh, ñu fay xaar ay mbër yu bëri mbër yu jógee ci Thiès Dakar ak Kaolack ñoom ñëpp euh, war na leen fa xaar mu nekk gala bu war a riche trop euh, culture dina fa feeñ waaye bëre ak feeñ yëpp dina fa feeñ incha allah incha allah ca noonu nag Matar Ba prolonge la saison lam ci xam ne même pendant livernage il y aura des waaw mën na continuer ba ca biir nawet bi ki yëkkati yooyu la kàddu mooy ministre Matar Ba di jëw jëwriñ ji nga xamante ne bii moo gàlloo wàllu tàggat yaram ci biir réew mi nee na dàqul li nga xam ne moom mooy saison bi ñu puus ko ba ca biir nawet ba dëgg la Mbaye Babacar Matar Ba prolonge la saison noonu la ko journal suñu laam waxee euh, même pendant l'hivernage il y aura des combats noonu la ko Matar Ba waxee ci biir journal bi nee na même ci diiran taw bi wala ci diiran nawet bi combat yi mën nañ wéy di am ndax euh, saison bi dafa yéex a tàmbali donc day yéex a jeex nee na promoteurs yi fi jot am combat yëpp su leen neexee dara terewu leen ñu dérouler seen programme diiran hivernage bi. loolu leer na. saison bi yemee fi mu doon yem combat yi du a terminer. Hmm. ma nga doon nag nongolo Cheikh Tidiane Niang face to face fee ci arène nationale dimanche bi jëm incha allah. mbay loolu dimanche lay am Cheikh Tidiane Niang ak ki nga xamante ne bii moom mooy ndongolo combat boobu Assane ki ko taxawal moom mooy mbay Mbaye ni hmm. nekk combat bu neex ba nga xam ne amateur yi ñu ngi koy bàyyi xel dimanche la ñu war a def seen première jàkkaarloo. dëgg la mbay Babacar Ndongo Lo Cheikh Tidiane avant-goût di duel de technicien ce dimanche noonu la ko journal suñu lamb titré nee na ndongoloo Lo mi ak Cheikh Tidiane Niang combat boobu nga xam ne nii Mbaye Yékini moo ko tëgg ñaar ñi dina def seen face à face dimanche bi di ñëw ci arène national Euh, dimanche boobu nag dina dina dina euh, jour boobu la beneen combat di am bu war a dox ci diggante Cheikh Super Jamono ak euh, capitaine diina combat bi nag Serigne Modou Niang ñoo ko tëgg Dina seen combat la face à face Ndongo ak Cheikh Tidiane Niang di war a am. incha allah ngi noonu nag round up de galas Prince CNG Mame Gor Diouf kii di Sam Sam Zambala sax la Franc ak général Malika ñoo fa jël raw gàddu ga Mbaye Babacar. jërëjëf Ndeye Mbacke suñu làmb dafa ñëwaat ak ñun ci galaa yi nga xamante ne bii ñoo fi jot jàll ci fan yi jàll euh, suñu làmb nag joxoñ ci ñetti mbër muy Franc général Malika ak Jambala ñoom ñetti Assane mu mel ni gën nañ cee fës wane nañ ci seen bopp. dëgg la Mbaye Babacar round up des galas de prince euh, CNG et Mame Gor. comme ni nga ko waxee Franc euh, général Malika ak euh, Zambala ñoo gën a fës ci gala yooyu ndax euh, gala prince bi mi nga xam ne mi ngi amoon le trois avril ci arène nationale boobu Franc moo fa daan final général Malika ginnaaw bi mu ko daanee final nag Franc am na 1 million 300 mille général Malika mi ñu daane final am na 910 mille gala maam Góor Diouf bi nga xam ne nii mi ngi doon amee ci arène Adrien Senghor 5 avril le 5 avril. boobu général Malika moo ko jël ki mu daane final mooy Pape Maroon. ginnaaw boobu nag général Malika encaissé na 500000 euh, Pape Morone encaissé na 350000 euh, beneen gala bi ci des moom mooy les mercredis de l'arène te waa CNG di ko tëgg euh, chaque mercredi loolu mi ngi xewoon le 7 avril bi passé foofu ci arène nationale. combat boobu wala gala boobu Zambala moo ko jël ki mu daane final mooy Lagandong ginnaaw bi mu ko daalee final nag am na 1 million Lagandong mii ñu daane final am na 700000. ayca macha allah record lañ jëm El Hadj Gueye champion Sénégal de boxe. lam ca xam le na mooy Reug Reug a gagné mais avec énormément d'erreur Mbaye Babacar euh, El Hadj Gaye moom mooy yëkkati yooyu le kàddu El Hadj moom champion de boxe la ci fi nga xamante ne bii moom mooy Sénégal Olof Njaay nag dafa ne euh, ki fekke dugub ji moo mën a wax ni mbojj mi ki fekke mbojj mi moo mën a wax ni dugub ji toll wante li mu saf ki ko macce ko xam euh, mbonaata xam la ci dégg ba moom muy nuur ba ci biir ban ba ki nga xamante ne bii moo nekk ci biir sport bi lu mu wax ci biir sport bi war nañ koo mën a gëm nee na rëg-rëg gañe na wante bëri na ay faay yu mu def ci biir combat bi dëgg la may Babacar El Hadj moo yëkkati kàddu yooyu El Hadj Gaye nag euh, champion du Sénégal de box moom gagné na champion du Sénégal trois fois moom nag nee na Reug Reug a gagné mais avec énormément d'erreurs nee na euh, Reug Reug mi doon euh, jàkkaarloo ak Patrick Sumit ci MMA te mu kaawa ci premier round bi nee na malgré que Reug Reug gagné na waaye ay ay erreurs yu bëri la def nee ndax Reug Reug buy attaque day day day dox te mhm. noonu loolu euh, baaxul nee na également day buté ci adversaire am mais bi ci gën a garaaw nee na rëg-rëg buy dem day déclencher avec la main droite alors que en réalité avec la main gauche la war a déclencher ay ca ma nga noonu kur fañe bari na torop boroom xam-xam la doon wax de wallaahi après sa victoire rëg-rëg quitte Singapour le 10 direction Dubaï Mbaye Babacar Ndeye Mbacke rëg-rëg gannaaw ba mu amee ndam ci Patrick Smith mu war a dellu nag Dubaay loolu kañ lay am incha allah le 10 bu ci yàlla àndee lay jógee Singapour jëm fële ca Dubaay. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi mu daanee Patrick Schmidt foofu ci Singapour regret nag war na jógee ci Singapour le 10 bi muy suba incha allah delluwaat nag euh, Dubaay ndax Dubaay foofu lay entraîné combat am yëpp foofu la nekkoon avant muy dem Singapour di jaflanteeg ak Patrick Schmidt bi léegi suba ci le 10 avril bi lay jógee waat Singapour delluwaat foofu ca Dubaay nga xam ne foofu lay continuer préparation. Uh-huh. ma ngi noonu nag ci Leewtoo point net la ñuy jeexalandi ak nga xam te ne mooy Fallou Ndiaye. promoteur la lam tëgg nag mooy lutte simple fee ci arène nationale daal dafay teg mise u 4 millions kam ci sargal nag mooy Yaxya Diop Yékini l'ancien roi des arènes Baye Babacar jërëjëf Ndeye Mbacke Fallou Ndiaye moo def loolu borom Ndiaye production loolu incha allah le 10 lay am fu la ci arène nationale samedi daf cay sargal Yaxya Diop Yékini wante man la ma ca gën a neex dama part mooy daf cay sargal ñi nga xamante ne bii ñooy doomi Bawol yi parce que euh, Bawol sans frontière fas yéene nañ leen faa sargal la ma ca gën a neex nag mooy ñu fa seen faa sargal sama rakk ji Basirou Diouf borom wasaare làmb di ka nga xamante ne bii mi ngi def liggéey bu am solo ci li nga xamante ne bii mooy milieu làmb ji kon fàllu dama ko naan fi nga teg sa loxo baax na fi nga wokk foofu moo xesen di ko teggi dëgg la dëgg la mbay Babacar Fallou Ndiaye moo def loolu sargal waa Bawal sargal ni kon wàcc na loolu nag kañ lay xew suba le 10 avril foofu ci arène nationale di si samedi bi Fallou Ndiaye moo fay woo mbëri li simple yi lu mu fa teg benn mise 4 millions la leen tegal euh, kii animé galaa bi nag moom mooy ngoom Momo Ngom ak euh, Mbayang Loum di le duo magique ñooñu daal euh, Fallou jël pour que ñu tëggal ko galaa boobu réussir defoon na réussir nag première journée am bu neex bëri ay nit Euh, mi ngi xaaraat la même chose suba amateur lu ñëw seetaan ci gala bi ñëpp ñu dundandoo ko constat euh, làmb yi mu neexaat. kon mu ngi noonu nag rendez-vous le 10 avril fee ci arène nationale bu ñu fa jógee nag le 11 dañ jëm Adrien Senghor daal di saral rek jëm fee ca Nangar Leewtoo production moo fa woote teg fa valeur un million de cinq un million cinq cent. mbay waaw un million cinq cent. moo ko tëgg kon nee leen. semaine bi moom weekend bi moom tàggatoo bu neex a neex a neex a neex lay doon loolu moo nekkoon li gën a fës si boobu xibaar yi mbay looy tàggatoo bee dig leen daje incha bu ci yàlla àndee ak salaam yàlla na jàmm yàgg Assane euh, ne Mbacke di la remercier di remercier mbay Babacar di remercier internet également bu Leewtoo TV Yacine Fall Mansour Bilal euh, mbay tout le monde di remercier équipe bu Leewtoo yëpp di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. doo remercier Bamba wala nga Bamba <laughs> mu ngi noonu nag leen jaajëfal bu baax ah loolu moo nekkoon li gën a fas si bopp xibaar yi di remercier sama équipe bi yëpp comme ni ko Assane waxee rek leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV. Sénégal mbokki amateuru lamb yi ki woote bërki dém boo njaay ci arène nationale wàcce ko ba mu def doom moom Fallou Ndiaye njiital Ndiaye production dafa ne sama yaram dafa tàng dootuma teggi sama tànk ni ma bégale woon mbër yi bégal ko amateur yi noonee laa leen di bégale waat woo leen ci arène nationale le 10 avril 2021 fas yéene dellu mbàttu ca ndaa la ma ne mbokki amateur yi ku la jox ndekki jox la añ bu la diggee réer woon nga koo gëm kiy dundal lamb te du ko dundee bu wootee faw amateur yi si ko faaw mbër yi wuyu si ko ndax kenn du lambam di mer moom njiital Ndiaye production dafa defati lu yéeme mu ne ma loolu mooy drapeau 100 pour cent bawal mooy drapeau bawal sans frontière bawal bawal yi nga xam ne daan doole rek lañ leen xamee bawal bawal yi nga xam ne domaine boo dem fekk leen fa ñuy ay jàmbaar ñoom laa fa séenee dal la njukkal dippe leen drapeau bi wax bawal bawal yi faw nga wax le ministre Mor nekk ministre conseiller coordonnateur départemental de la commune de Bambey maître Pape Sène maire de Ndondol docteur Djibi Thiaw maire de la commune de Réfane monsieur Daouda école de lutte Badajon sunu papa Badajon di président bawal sans frontière Cheikh Anta di président écurie bawal Fallou Faye di écrit bawal mbooloo Assane Ndiaye promoteur de lutte bu mag bi directeur général bawal TV président production di promoteur de lutte Baye Serigne Tine di premier adjoint au de la commune de Réfane Idali Ñing di promoteur de lutte di ci sargal ku ci mel ni Serigne Djib Fall ak ku ci mel ni Zal Ndir Gora Ñaa ca Pàkku Bel-Air Mamadi Diouf bu ITV Ibra Diouf di secrétaire général jeune amateur wulli wulli waat bawal bawal bu mag bi Modou Baye di PDG wu Xelcom président Bawol sans frontière Mahmadan Sougou nekk responsable Pastef Arefan Bada ñi ngi di président mouvement Karim Kay Soppi Babacar Dione reporter de lutte bu mag bi ca Equivox Modou Anta sans frontière ak Basirou Diouf bu Wassare Lamb ma ne mbokki Sénégal mbokki amateur yi bésu Bawol Bawol yaa ngoog kan moo xew le ñu ne Fallou Ndiaye Bawol Bawol bu mag bi ñen la dippe drapeau bi ñu ne Bawol Bawol yi rawatina waa Bawol sans frontière ma ne ko Ndiaye production xadd nga kaaba ga Bawol Bawol yi ku leen génne ci làmb wecce ta cay ku leen tudde làmb delloo nga mbattu ca ndaa la mu ne ngir bégal amateur yi fas yéene sargal Yaxya Joob Yékini ancien roi des arènes doomu Joal bi doomu Baasul bi ki def temps ci roi ba di 4 millions de francs CFA moomoo ngoom fas yéene janoog mbayeng lum ñu sàjjati foofu defati cosaan bégal mbër yi bégal mbokki amateur ñu ne ci bés boobu lañ fas yéene amal tirage tournoi bu mag bi muy tournoi ñi ngi production ñu fas yéene tirage diggante yankaaw albarka kayre caatu daawda faala kaaw gourde ñu ànd ci kewel info bawol TV Equivox TV la 2STV ànd ceeg wasaare lamb ànd ceeg institut sénégalais de la boulangerie pâtisserie ñu gën koo xam ci ISBP ànd ceeg menuiserie aluminium safar Ndiaye global business ànd ceeg best vision ànd ceeg DPA défense pièce auto couleur immobilier VIP fast food c'est Adja Degen ak Xelkom automobile ma ne mbokki amateur yi bés baa ngoog avril ci arène nationale ñu ànd ak Ndiaye production foofee dara du fa yomb te lu fa waay indi du des.